arabe du la arabe mais Pawlish yow au moins oh, yow au moins yow au moins tukki nga. xam nga li xew bitim réew. yow nan nga nekkee woon Italie. des fois ma sàcc nag. sàcc waaw ah déedéet man maa kaso. sàcc moo la fa yóbbu. waaw waaw waaw sàcc benn tubaab laa doon sàcc. benn mère tubaab nga doon sàcc. moom sonn naa ma amoon boobu sonn naa trop. c'est-à-dire j'ai pas compris. sama lekk baaxul woon su ma doon tëdd des fois ñu dàq ma des fois ñu toroxal ma waaye ba ma duggee kër sama papa am na càmm looloo loo lu ko mbaay loo sàcc mais loolu nekk état di rubaat loolu état tudd sur rubaat sa capital état di tudd rubaat. ok loolu sàcc tout le temps or téléphone lu ne. da nga këf. maa dàqoon na këf kii Amita Bachar. Ah man maa këf rek maa laajoon am su ma su ma la tàccee nga xool nii lii lii day naaw yàgg xool leneen. mais ak caméra yi am na caméra yu bari da lay tax te tubaab dañuy gis lépp day tàyyee a jàpp. ñàkk a métti daal. mais luy ci xiiroon noonu. parce que ma bëgg na ñibbi si bëgg ku ma refilé kenn ma refilé boobu sonn naa man xaaral jéem sàcc bu ñu jàpp may ni ma. xanaa dañ fa duggoon ci infraction. déedéet te loolu sàcc kenn li li gën a métti boo bëggee ñu indi la kenn du la indi lu gaaw laa la wax nag policier da leen wax mu ni kenn doon naa lool mais bëgg ñu jàpp may ni ma du la indi ma sonnoon naa samay xar ñu mel ne ku nekk Zambie sama tànk yi fett ma jeex ñu naan kii dafa jabet jabetu ma. xanaa amoo loolu liggéey. amoon sàcc ma am métier. wax moo tax ma wàññeeku dem waxi dof amoon métier de mais amoo métier yàlla ma suturaal rek amoo métier benn yoon daal laa ma sa jàng sa maam yóbbu boobu nit ñi def affaire école affaire affaire école ma ne sa maam yóbbu ma dem jàngi école trois ma fàtte ma ko benn man ma tëdd ci école rek saw ñu daa ko benn man ni ma amoon saw saw la la loo ko bàyyi daa yàgg da ngay naa Mouhamad yal naa ci saw la tëdd saw. waaye dama lu ndaw la bëri ci démb saw ma. père barke yonent ci yàlla ma xam yaa sama yaay laa ko yaa naa ko ñàkk tey bëri ci démb saw naa man mii barke yonent ci yàlla ma xam. tëdd saw la. tëdd laa ilaha illallah père man li ma saw nit di saw ci doomu aadama kay mat. nit du ko saw damay nekk histoire à à l'époque euh, sama maam yóbbu na ci benn paa bu nekk ginnaaw Touba ginnaaw Touba boobu daa moo dem ngénte parce que ngénte bu ma dem dama koy saw par force loolu saw moom dafa bokkoon ci man saw moom saw moom léegi man fuy mbuusu toile ci àdduna xam naa ko fuy mayee mbuus am na benn pël sama benn peer tudd ci li pël heure bu daajee meew damay toog xaar ñi dañuy wut soow ñi dañuy ñuy wut ci meew man wutuma meew muus naa wut pour ko fi may tëdd xam naa ne tey damay saw fa force te saw metti te saw ko wagaa dara metti bu wagaa moom laay fenn ma saw <laughs> mais bi dinooy nekk saw li ci soide barki yo benn xalaat aw noo fen billaahi wallaahi laax li ma saw nit du ko gaaw a saw ci àddina sa maam sonn nag dem ba sonn parce que maay nekk mag sa maam ne dama yóbbu benn benn paa bu nekk ginnaaw ginnaaw Tuubaa paa bi ñu jokkante moom téléphone téléphone normal xam nga sax ba woo teel woote téléphone yàggul xanaa woote ne bu fi ñu jógee fii jël horaire Baye Bass am na horaire bu tudd Baye Bass. Mm. ñu ne ginnaaw la yàlla Baye Bass. horaire <laughs> <laughs> Baye Bass li may dëgg la de sa maam sa maam ñu du horaire man ci horaire bi dèjà sax te ñoo waayu ma faju comédie wala barki yonent ak ma suul sama ndey ak sama yàlla na gën a trop sama bi ngay dem ci orange bi orange bi saw naa orange bi dèjà man pour te dire saw naa orange ba dem saw naa orange bi dèjà ñoo maa yóbbu ma dem faju ma dem saw ci orange bi barki alxuraanu karim Touba ba Dakar ma saw orange bépp te damaa tëdd man daan tëdd laay bañ teg saw ba fële laay bañ mujj gi damaa doon ba manqué ndox parce que ruus naa dinaa ndox barki alxuraanu karim billaay wallaay ma ma ñëw sama maam yóbbu ma na ma léegi mais bi nga sawee ci horaire bi loo def. lu ma def sama sama sama maam ñoo toog sama maam na Ablaye da ngaa ci waay wala ñu wax ci waay xam nga ma ne ko ah ci waay la ma ñëw. mais euh, lu doon doon na kuusu. dii di boobu tout dépassé naa kuusu sama suuna bi romb na kuusu bee. wala xaw ma moom moo kuuse wu bët moom maa ngi maa ngi doon wax xam xam xamaane boo kuusoon kuusu jeex day bëtul de. sa maam yëpp ma mu ñu ne paa bi paa bi paa bi paa bi ci war a faj dama def ma nii nga rek paa bi ñëw li dama def dama noo tudd ma ne ko Ablaye Mbaye mu ma sa tur moo ko sama tur sa maam sa yaay moo ko sama tur yaay sama papa mu suñ mu rek dañ jël sama tur bi def ko nii tër mu ñu woyee kii ay mun gi paa bi ñëw buusu ko ma ne looy jox ki ne mu ne kuy kuy xaar ne ñëw suñu woose suñu woose jël sama tur bi ne ko tër tër tër tër tey ma ne tey jii kii moom xam naa ne sama xel tey laay bàyyi sow moom tey paa bi ñëw taxaw ne ma sawal li ngay sow bu ñu defee ma saw ma ne ko du saw paa bi bu sawatee parce que lu ko te te bu ma ci yoon bi ma nekk ay xaar man xaar sax boo xoolee bàyyi ma ne ku jabet ñu interdit ma xam naa ne du ne xaar di saw ndox pour parce que ruus naa ne naan ndox xam naa ne ay saw xool bi histoire laa histoire bu rëy xool ma ci yoon bi may may lekk xaal xaal normal moo gëj lekk xaal kenn xam ko may lekk xaal normal xam naa ne Paa li mu wax ma ne kii xam naa ne soo bàyyi naa ko may lekk xaal normal mais pee daal barke Seyduna Muhammad ba ma ñëwee tëdd sa maam jox ma fas ma fas ko sa maam muus ma dindi ko sa maam ma ñëw tëdd si kaw lal yàlla def bi sa maam woo na ko kii bu sawatee yàlla naa génn sama maam la ma tëdd si ma sama mbaaj. xoolal man ni may xoolee Paw bi. ma tëdd sama mbaaj maam sàng tëdd nelaw mais damaa tëdd billaahi wallaahi laa balaa amee lu ma nelaw ma sawlal bi saw musuma saw li ma tawee woon saw mu foor boo xam ne dafa dafa nekk ay xaal ma mel ne solution ma ne lii nag dafa ma ne la feebar la dafa ah, nga ne yow bëgg dem rek saw la yàggul bëgg dem rek saw naa barki yonent yàlla sow naa sow la lépp xam nga boo moomee sa ni booy sawee kon yaa amul kenn ko ma sow naa weer jël kii bi dama sow ko ci ma bi nga xam nga dama toog ne rek Lamine Mbaye kaay